الله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 maa ngi lay ñaan ci at mii man borom Touba nag ma may lépp loo xam ne rawoon na ma rek ci sama gannaaw ci lu ma jiitu ma dabatal ko ci at mii ba mel ni rawut moon wala tax da yàlla nga doolee gërëm an Abaad ibni Bisri wali Abaad ibni Bisri waxtaan yàlla nga tànnal li ñeel ma alxayraati yiw yi toolu omri ak yàggug samug dund yow sun borom yàlla na nga doolee gërëm Abaadati ibni Bisri waaye lépp luy lu baax rek tànnal ma ko ma di ko def ci waxtu ne waaye yàlla nag ma ci tegal toftalal ma ci fan wu gudd waxtar yàlla na nga tànnal yéen ñeen ma alxayraat yi waaye toolu omri ànd ko fan wu gudd wasu yàlla na nga doole màng di daaka sa ngërëm ilaa abaadi jëmee ci abaad wala di xaysin kay doom ci xaysin wala tasit yàlla na nga dolli rasaadi sama njub yàlla yàlla nga doole màng sa ngërëm jëmee ci abaad ibnu xaysi waaye njub gu nekk ci man yàlla na nga koy dolli ci waxtu muy gën di continuer wala tax yàlla nga doole gërëm an abaad ibni aysa walis abaad ibni aysa wasaat yàlla na nga seede bi am di samak cant la ka ñeel ama saysa ci atum mille dégg nga ci atum ama aysa ci atum ama saysa mu ne yow sunu borom yàlla na nga doole gërëm walis ki nga xam ne mooy Abaad ibn Aysa Abaad ibn Aysa moom lañ ko doon wax. waaye yàlla ma seedeel man borom Tuubaa yow yàlla waxtu ne cant gi bi lay cant di ko jëmee ci yow ci mille trois cent quinze. ama saysa siin su tooy mille la siin su waw si su ko defee muy trois cent. muy mille trois cent nga jël yaa gi muy dix nga jël xaa gi muy asaxeer gi mu jox la cinq muy mille trois cent quinze. at mi dem ci géej gi at ma toppaat nga xamee ne ci la taalif man ngeen di xasida yaa xëy na ak xasida yu mel ni moom ak lu mel ni xasida ak wasiila turban mu ne nag war da yàlla wal tar da yàlla na nga doolee gërëm an Abaad ibn Aysa walis na ibn Aysa wasaar yàlla na nga seedal bi am sama cant la ka ñeel ama saysa ci mille trois cent quinze. wasoo yàlla na nga doolee mànga sa ngërëm ila ubaada jëmee ci ubaada wala di xasaasin kay doom ci xasaas wasit yàlla nga dolli ifaada njëriñam yàlla nga dolle màng sa ngërëm jëmee ko ci ubaada mi nga xam ne doom la ci xasaas ubaada ibnu xasaas waaye njëriñam moom ubaada yàlla nga koy dolli ci waxtu ni muy gën di yokk sit ne yàlla nga may dolli fataan ak xubbeeku innaka naka yow alfataahu yaay xubbi waa kon bi wa basir yàlla nga bégalee bi ci sama jëmu man ña nga xamee ne lahum ñeel na leen falaahu ak texe yàlla yàlla nag may dolli fatu gi nekk ci man yàlla nag koy dolli ndax yow kat yaay hubbi waa kon kon nag nag may hubbi di ma dollil samay fatu ci waxtu wi muy gën di yokku waaye mboolem ñi texe ñëpp yàlla na nga leen bégalee ci man. wal tax da yàlla na nga dollee gërëm xanaa ba dam ni saamit wali sama ba dam ni saabit wali sama ba dam ni saamit waaye wax di yàlla na nga fajal ànd ya walis ma al ama ci at mi ku la faa it lépp loo xam ne daf maa rawoon yalla na nga dollee gërëm xanaa ba dam ni saamit waaye lépp loo xam ne maa rawoon yàlla nag ma ko fajal lépp loo xamee ne xeeti naqar loon ci man yàlla na ko fajal ci at mi lépp loo xam ne daf maa rawoon ci aw yu yàlla fajal ma ko ci at mi ma am ko wajaal yàlla na nga def mataa bi sama tuub al ama ci at mi rabbi yoo sama borom maa hiya muy aji fara aniye mu sërima kulla ma jeneetu lépp loo xam ne tooñoon naa ko waaye maariya di aji wéy ci loo xamee ne neex na la ci at mi yow sun borom yàlla na nga def tuub yi may tuub ci at mi yëpp muy far loo xamee ne dama ko jotoon a def ci la wéy lépp lu ma defoon ci la wéy daal dama koo ci samay cër maa ngi la ñaan ci at mi tuub gi ma lay tuubal daal na far mboolem bàkkaar yi ma defoon yëpp su ko defee nag gannaaw bu jalle jàllee maadiyaa ma doon ko xam ne damay wéy rek te bañ a defati bàkkaar wasux yàlla na nga doolee mangari daak sa ngërëm ilaa amaar yi ko ci amaar wa kamil yàlla na nga matal mat la bi sama càkkuteef alxaama ci at mi yaa baari yow mi aji bindi ji yow sun borom yàlla na nga màng sa ngërëm jëmee ko ci amaar waaye at mi lépp lu may wut ci at mi yàlla na ma ko matal ba ma amee ko noonu yow mi aji bindi ji xab yàlla na nga may lii ñeen ma asiraata ma jaar ci sa yoon wi almustaqim wadaaji jub alaama ci at mi waab yàlla na nga may li ñaan ma at tawfiqa tawfiq ga muy dëppale ga wal ilhama ak ilham ga yow suñu borom yàlla na nga may ma teg sama tànk ci yoonu siraatal mustaqim ci at mi yàlla na nga may tawfiq lépp lu bay ko ci asamaan di ñëw ci suuf rek tawfiq moo ci féete kaw lépp lu bay ko jàmm bi di jëm ci boromam ixlaas muy sellal moo ci féete kaw kon nag doomu aadama war na di ñaan tawfiq waaye lu ñuy tuddee ilham mooy koo xam ne yàlla da koy déey lépp loo xamee ne xam na ko rek yàlla moo ko koy xamal moo ko koy déey di ko lépp lu war a xew yàlla moo koy xamal moo ko ilham da yàlla nga doole gërëm xana xokkaasata wali son kaasara alef yi mooy ki nga xam ne najaa mucc na minal isaabi ci xisaab wala tuaqiqa te yàlla nga dëggal araja yaakaaram ci yow yàlla nga doole gërëm xokkaasatu mi nga xam ne bu yowmal qiyaamee doo ko xisaab mukk na am sax ku dul xokkaasata mu teewoon ba dara kenn du ko xisaab mu lam yaakaar ci yow xokkaasatu bu ko tas nag waaye xokkaasatu nag dafa am jagle mooy ka a xam ne doon na xeex ca xare ba nga xamee ne amatul lum xeex foofu la yonent bi defoon moo ci jaasi itam damm na mu am ñeewantu lool bëgg xeex te jaasi itam damm na yonent bi sallallahu alayhi wasallam jël benn cëggug tàndarma jox ko rek mu soppeeku jaasi di ko xeexee kon gis nga ko mu ne yàlla nga doolee gërëm okaasar mi nga xam ne mucc na ci hisaab yàlla nga dëggal yaakaaram mooy bu mu tas mukk rajatu yaakaar naa min ka ceew an akoon ba ma nekk man borom tubaab fii xaddi ëllëg yamal xiyaam fii saalikal adad di bokk ci boobale lim doona kamari ci lur benn njàqare maa ngi yaakaar yow yàlla bu yomal kenn du leen te nag benn njàqare bu ma fa dal ëllëg yomal xiyaam ndax ñi ku nekk seen biir kat yomal xiyaam doo jàq wasoo yàlla na nga doole daaka sa ngërëm ilaa atiya jëmee ci atiya waab yàlla na nga may lii ñeel ma afdalul atiya ngën ci ay may alaama ci at mi yàlla na nga doole sa ngërëm jëmee ko ci atiya at mi maa ngi lay ñaan ngën ci ay may ci at na nag ma ko defal wala tarda yàlla na nga doole gërëm an xobaydatin wali son bayda wastajib yàlla na nga nangu alaama ci at mi maa katabtoo lépp loo xam ne bindoon naa ko fii kutub bi ci samay téere gis nga ne at mi at mi moom man nga ne bayit bu mu jël dégg nga dana fa tudd at gis nga ko moo tax mu yow suñu borom maa ngi lay ñaan yàlla na nga doolee gërëm da waaye nag lépp loo xam ne bindoon naa ko ci ay téere moo xam téere yi yi ma bindoon njëkk géej gi yëpp yàlla na ko nangu bis ñi ko tey wasuux yàlla na nga doolee maa nga ri daa an sa ngërëm naam yàlla lu daa ji doolee ku li antara jëmee ci antara wajaal yàlla na nga def xayaati sama dund ka xayaatil xiyara mu mel ni ki dund tànneef ya yàlla yàlla nga doolee maa nga ngërëm luy doolee ko jëmee ko ci antara waaye sama dund lépp na mel ni ñi ma fi jiitoon te doon ay tànneef seen dund nu mucc ci bépp ayib seen dund nu nekkee ay yiw képp nanga nga defee sama dund doon mu nekkee ko ay yiw dong wasux yàlla na nga màngari daa an sa ngërëm naam yéen lu du aji doole ko li ab si jëmee ci ab si wana ji ne yàlla na nga na nga musal wa wala di man ak samay doom yëpp mi naaf ñi bàyyi ko ci ak tëj yow suñu borom yàlla na nga màng ngërëm luy doole ko jëmee ko ci ab si waaye yàlla nga musal musal sama doom maanaam bu ñu kenn tëj ci koso wala bu bu bu bu saytaane bu ñu seytaane yàqal wala bu ñu bakkan yàqal wala bu ñu ëdduna yàqal wala bu ñu bànneex yàqal yooyu nga xam ne dafay tëj nit ki digganteem ak boromam mu ne kon wala jëri yàlla nga musal wala di man ak samay doom yëpp meen xab si ci lépp loo xam ne xëyti tëj la luy tëj nit ki rek ba mën a dox digganteem boromam rek yàlla yow borom yàlla nga ci musal ci saay rek baatin wasux yàlla na nga dolle mànga di daaka sa ngërëm ilaa xadi jëmee ci xadi war fax yàlla na nga yëkkati ilayka jëmee ci yow at mi rabbi yow sama borom sax yi samay jëf yàlla nga dolle mànga sa ngërëm jëmee ko ci xadi waaye samay jëf ci at mi yëpp yàlla na ko yëkkati jëmee caw mooy yàlla na ko nangu ba sox yàlla na nga màngari daa an gërëm naam yan luy aji dolleeku li aw fi ci aw fi wana jëni yàlla nga musal mi na saxaa ci lépp luy texee di wal xaw fi ak ragal yàlla na nga doole màng sa ngërëm luy dolleeku jëmee ko ci aw fu waaye lépp luy texee dek ragal rek yàlla musal ma ci wasuux yàlla nga doole màngari daa ak sa ngërëm ilaa ot baanaa jëmee ci ot baan waab yàlla nga may lii ma as suhuda teewee wala xiyaana ak jàkkaarloo ga yàlla yàlla nga doole màng sa jëmee ci ot baan yàlla nag ma may mbir yi ma ma koy teewee di jàkkaarloog ñoom bët ak bët nga xam ne dara dootul mu wumputi wa suxul yàlla na nga dollee màngari daa ka sa ngërëm mi dégg nga jëmee ci mi yàlla na nga màngal lee jëmee ci man xayra ka sa yiw ku la yami ci bépp bis yàlla nga dollee màng sa ngërëm jëmee ci ooy mi waaye sa yiw yëpp bépp bis rek na may màngal sa yiw muy ñëw ci man wa suxul yàlla na nga dollee màngari daa ka sa ngërëm ilaa ayaat yi jëmee ci ayaat yàlla na nga seedeel bi an yi man alaama ci at mi raadin aji gërëm laa an ko walis la yàlla yàlla nga dolle màng sa ngërëm jëmee ci ayaat at mi nag ma seedeel man borom Tuubaa gërëm naa la wasoo yàlla nga dolle màng di daa ka sa ngërëm ilaa obaydi jëmee ci obaydi ay la ma ca namu wala di tayaan doom la ci tayaan waskur yàlla na nga sant saydi sama gërëbu yàlla yàlla na nga dolle màng sa ngërëm jëmee ci obaydu mi nga xam ne doom la ci tayaan waaye nag obaydu ibnu tayaan lañ ko doon wax rek waaye yàlla na nga sant sama gërëbu ndax mooy jawfal faraalil wara mislal mahaarina sëriñ bi tukki bi mu tukkoon ci géej gi da doon rëbb rek ba mu demee ba jàpp nag lam doon rëbb kooku nag moo tax nag mbindeef yëpp xaj nañ ci jawfal fara la tudd mooy pajuk aajo la ci mbindeef yëpp kon loolu mooy rëbb gi wasu yàlla na nga màngati dan gërëm li Ubaydi jëmee ci Ubaydi ibni Abi Ubaydi kay doom ci Abi Ubayda wa fukka yàlla na nga xob bi xëy di sama jéng ani musarima yàlla yàlla na nga màng sa ngërëm jëmee ci Ubaydi ibni Abi Ubaydi waaye li ma tënk dox sama diggante ak yow ba mantu tinkeeku yàlla yàlla na nga ko dajjal sa bopp ndax ma mën a jekku li nga xam ne moo di jaamu la ak sellal la wasox yàlla na nga màng di daa ka sa ngërëm li obaydin jëmee ci obaydi wala di saydin kay doom ci saydi wajut yàlla na nga tabe lii ñeel ma aajilan ci lu gaaw bi maqsadi sama jubluwaay yàlla yàlla na nga màng sa ngërëm jëmee ci obaydin ibnu saydi waaye li ma yéene jublu ko te bëgg ko yàlla na ma ko may ci lu gaaw ma am ko wasox yàlla na nga màng di daa ka sa ngërëm li obaydin jëmee ci obaydi wala di awsin kay doom ci awsun waxa yiban na nga tas yaakaar wa ban yàlla na nga sooyal suróona husadi njortoog ñi xam ne dañ maa kañaane yàlla na nga doole màng sa ngërëm jamee ci Ubaydu ibn Awsi waaye ñi ma kañaane yëpp seen njorto te mooy kañaan gi nga xam ne moo nekk seen xol ñi kañaane ma ko kooku aw xay lañ ma bëgg jural waaye nag loolu yëpp na nga tas seen yaakaar kañaan gi daal na dellu seen xol lakk ko lekk seen jëmm ya kon nag wa xëy ban yàlla na nga sooyal suróona husadi njortaay ñi ndax ki la kañaane moom la rek safaan lay doon caw mooy lu bon rek lay njorto loolu gis ci yow wasux nga mànga ridan ridan rida an sa ngërëm naam yan lu de aji dooleeku li xot ba jëmee ci xot ba wala di abdullahi kay doom ci abdullahi ji ali rut ba kadi aji kawe daraja yàlla na nga mang sa li dole dooleeku jëmee ci xot ba ibnu abdullah moom mi nga xam ne ku kawe daraja la wal tarda yàlla na nga doolee gërëm an xot ba ta wali su xot ba man mooy ki nga xamee ne xadin tama ñi koy askanale ko ci xaswaan na nga nangul li ñeel ma yow sun borom yaa raxmaan yow mi xéewalaa koon bépp mbindeef ci àdduna yàlla na ko doolee gërëm yow yàlla xotbatu ibnu xaswaan moom mi nga xam ne moom lañ koy askanale muy ku ñëw xaswaan xotbatu ibnu xaswaan daal yàlla na ko doolee gërëm waaye lépp loo xam ne ñaan naa ko yàlla na ma ko nangul yow mi xéewalaa koon ñëpp ci àdduna istajib na nga nangul lii ñeel ma sama ñaan bi ma loo xamee ne yëfooku dana kawe sax sa nii sama njort al ama ci at mi nga ma koy defal wajaal ni yàlla na nga ma def suróora xar nii may mbégteem ñi ma jamono wante muy samay maas yàlla nag ma nangul sama ñaan defal ma lépp lu ma la ñaan ba defal ma loo xam ne sax dana faw ko sama njorto te lépp ci at ci laa la koy ñaan waaye yàlla nag ma def ci at mi ma doon nit koo xam ne dafay doon mbégteeg ñi nga xam ne ñoom la jamono wanteeg maas ak ñoom waxtu bi yàlla na nga bindal lii ñaan ma al ama ci at mi sawaaba haji yoolu ko añ makka wa umrin yoolu ko umra wa kun yàlla na ngay nekkal lii ñaan ma na ma ku dem makka ndax at mu la bëggoon a dem makka ñu far génn ko na yóbbu ko ci tukki ba waaye itam nag ma bindal mu mel ni am naa yoolub ko omra amoon na yéene bu demee aj màkko omra waaye nag ñi tere ko ko suñu borom dox digganteem ak noon yi su ko defee nag noon yi noon yi ñëw jël si ko mu mel ni nag loolu ay tolof tolof rek fekk nag biir gi yëpp mën naa doon kaane waaye fekk biir yëpp lem la rek ak suukar dégg nga baatinuhu fiihi rahmatu wa saahiru min qabilin asaabu yóbbu gu ñuy yóbbu gu ñu doon yóbbu sëriñ bi ci tukki bi nga saayir si yëpp mbugal la waaye baatin bi yëpp fekk ko yàlla dencal la mu ne kon nag yàlla nga may doole nekkal te yàlla nga may doole musal waxtu bi yàlla nga doole ma bind rida ak sa ngërëm ilaa awli man ko ci ka njëlbeenu ka nga xam ne du fi na dencees na ko fil xarxari ca xarxat maxbaril minan te mooy bàmmeelu minan ya mu ne ah, yow sunu borom yàlla nga doole bind sa ngërëm jëmee ci ka nga xamee ne nag moom la njëkk a denc ca xarxat xarxat boo ko déggee mooy barab boo xam ne dafa bëri ay garab loolu la ñuy wax xarxat boo xam ne dafa bëri ay garab lool lool lool te bàmmeel yooyu nag dafa bari ay garab moo tax ñu di ko tuddee xarxat te garab yi man nga ne dañuy jegewante lool lool moom la ñuy tuddee xarxat mooy garab yoo xam ne dañuy yëkkatiku man nga ne garab gu ci nekk ak sa morom matul ñetti meetar man nga ne bàmmeel yëpp noonu la mel moo tax ñeneen ñi di ko tuddee xarxat mooy bàmmeelu mineen ya madina daal kiñ fa njëkk diñ ci moom lay bëgg a wax nii. moo tax ma ne waxtu bi yàlla nga bind rida ak sa ngërëm awli man jëmee ci jëmee ci njëlbeenu ka nga xamee ne du fi na dencis na ko fil xarxat yi ca xarxat mooy barab bu bëri garab la maxbiril minan ta mooy armeelu minan ya ta mooy madinatul munawara kan mooy kooku mu ne Osmaan Osmaan man mooy ki nga xam ne yun maa man ànd ko képp koo xam ne fu nekk na foofee kulli yin ci bépp jamono mu ne yàlla na nga bindal sa ngërëm jëmee ko ci a denc ca bàmmeelu madina yi fa njëkk a denc ci ne képp ku mu fa nekk ak nag yàlla na koy bindal ngërëm ci waxtu ne ca bàmmeel yooyu waxtu bi yàlla na nga bindal lii ñeel ma sawaaba sawri yooru ku siyaar ji yonent bi wal jiwaari ak ku dëkkaaleeg moom alxaama ci at mi wa tayib te yàlla na nga teeyalal lii ñeel ma daar samay kër yàlla maa ngi lay ñaan ci at mi yàlla na nga bindal ma am yoolu ku siyaar ji yonent bi yoolu ku dëkkaaleeg yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye sama kër yàlla na nga ko teeyal yépp musal ma ci gépp fitna ci kër ya waxtu bi yàlla na nga bindal rida an ngërëm daa iman lu di aji sax li asma jëmee ci asma ibnul husayni kay doom ci wal tuddim te yàlla na nga saxal lii ñeel ma ma sama kaaraange muy sama mucc yàlla yàlla bind sa ngërëm luy sax faw jëmee ci xes ma ibnul husayni waaye li ñuy tuddee xes ma mujj ak mucc yàlla na ma ko saxalal faw ndax day xool rek li nga xam ne saxaaba yi tudd nañ ko su fekkee tur la woo xamee ne jaadu na muy doon loo xam ne jalbu lay doon wala naf yu mu ñaan yàlla ci barkeb turóob mu saxalal ko dégg nga xes ma wala mu ñoddil ko leneen rek wala mu dàqal ko leneen su fekkee turoo lu ne xes te saxaaba bi no la tudd moo tax mu ñaan yàlla wal tuddum li asma yàlla nag ma saxalal kaaraange wala sox yàlla na nga doolee mangari dan gërëm li asmatin jëmee ci asma bi nga xam ne xadin tama ñi ngi koy askanale li as jaxa ko ci ko ñëw as jaxo wa wasixa yàlla na nga yaatalal lii ñeel ma abadan faw yàlla na nga màng sa ngërëm jëmee ko ci asma ibnul as jaxa waaye lépp loo xamee ne xeeti xéwal la rek yàlla yàlla na nga koy ñot di muy ñëw ci man nga dima ma yaatalal xéwal yu nat wasuxu yàlla na nga màngari dan ngërëm lim ni aw fin jëmee ci dégg nga doomi aw doomi aw fuga abid rahman tamay abid rahman bil bisri ànd koog mbégte wal amaani ak sécurité mu ne yàlla nga màng sa ngërëm yow yàlla jëmee ko ci doomi aw fu ji boo déggee aw fu mooy abdurahman ibnu aw fi moom la ñuy xaw fu dafa amoon doom ju tudd abid rahman nag mu ne yàlla nga màng jëmee ci abid rahman moomu nga xam ne doom la ci abdurahman ibnu aw fi na nga màng sa ngërëm jëmee ca mam waaye ànd koog sa mbégte ak sa sécurité waab yàlla nga may lii ñel ma bu saaratan mbégte te doomu moo xam ne day sax faw yàllaahu yow yàlla yaa raxmaan yow muy xéewalaa kon ñëpp cër na yaa raxiimu yow muy aji yërëm ku la soob ci alaxira yow sunu borom yàlla na ma may mbégte muy sax faw yow mi nga xam ne yaay kii xéewalaa kon ñëpp cër na yow muy aji yërëm ku soob ci alaxira wasu yàlla na nga màngari dan gërëm lim ni jabri abidurahmaan jëmee ci doom yi jabri ja te mooy abidurahmaan mooy mooy abidurahmaan yaa xalqal akwaan yow muy aji bind mboolem adduna sépp monde yëpp yaa leen bindee yàlla yàlla nga doole màgg sa ngërëm jëmee ci abidu rahman dégg nga mi nga xamee ne doom la ci ibnul jabri abidu rahman ibnu jabri lañ koy wax mu ne yàlla nga doole màgg sa ngërëm jëmee ci moom moo tax ma ne wasux yàlla nga doole màgg di dan sa ngërëm lim ni jabrin jëmee ci doomi jabri ji abidu rahman te mooy abidu rahman muy abidu rahman ibnu jabri yaa xaalxal akwaan yow mi aji bind mboolem univers yëpp monde yëpp wasux yàlla nga doole maa nga di daaka sa ngërëm li abdullahi jëmee ci abdullahi ibnu jubayri kay doom ci jubayri si la kay borom kawe wal jaayi ak daraja yàlla nga doole maa nga sa ngërëm yow yàlla jëmee ci abdullahi ibnu jubayri moom mi nga xam ne ku am kawe la ak daraja darajaam lu kawe la wajal yàlla nga def bi fadlika ci sa ngëneel muqadamaat yi sama xasida gi li ñeel ma wasaila ak wasailat ak aji laaj ilal janaati jëmee ko aljana mu ne yàlla nga def ci sa mbaax yow yàlla sama muqadamaat bi nga xam ne jiital moom laa njëkk taalif man nga bi may dem ci tukki ba nang ma ko defal ak képp koo xamee ne am na lu lay ñaan ak lu mën a doon rek ba keroog muy dugg aljana nang ma defal li ma lay ñaan ci muqaddama bi a képp ku la ci ñaan rek ba keroog muy dugg aljana kon wajal yàlla na nga def bi fàttali ko ci sa ngëneel muqaddamaati sama xasida gi nang ma ci defal li ñeel ma wasaayil ak aji laaj ilal janaat ba keroog muy dugg aljana maanaam lépp lu ci waaye ñaan daal ba keroog muy dugg aljana yàlla def ko te moom mi ko même mi nga xam ne moo ko bind itam lépp lu mu ci doon ñaan yàlla suñu borom defal na ko ko wasux yàlla na nga màng ilam ni jaddi abdillahi jëmee ci doomi jaddi ji te mooy abdillahi xayra di daay ka ngën ci sa bi laa tanaay gudul am daytal yàlla na nga màng sa ngërëm ko ci abdillahi ibnul jaddi ngën ci sa ngërëm loo xam ne du am mukk fu muy yem day ñëw rek di sotti ko ci moom wajal yàlla na nga def makaati wi sama mbind mi te xawmu mu taxawee abadan fa maqaama ajin taxawaayu aj wa jihaadin ak koo xam ne dafay jihaad li leen daa ay noonam yàlla na nga def sama mbind mi nga xamee ne mbind mi ci bopp mooy taxawee taxawaayu aj ci képp koo yaa ngi ko jàng mel ni ne waxtu ne yaa ngi aj màkka di am yoolub ko aj màkka mel ni ni mel na nga di ku teewoon xare badar ba noppi nag di jihaar ak noon yi noon yi nga xam ne moo doon noonu yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon xasida gi ana kan moo koy tere ñi di ko jàng xasida gi ana kan mooy kii tere ñi di ko jàng yàlla nga def suma mbind mi mu taxawee taxawaayu ko aj màkka ak taxawaayu kuy jihaat ak noon yi waaw yàlla na nga may lee ñeel ma fii ci bin bind mi te daaru ko ma dabaatal jëmee xama faatini mboolem ay yiw yaa sami yow mi aji dégg ñaan ji yàlla yàlla nga may ma dabaata lépp loo xam ne daf maa faatoon daf maa rawoon ci ay yiw yow mi nga xamee ne yaay aji dégg ñaan ji walib ni jaxsin maa ngi la ñaan ci doomi jaxsi ji wax wate moom abdullahi te mooy abdullahi suqi na nga màngati dan sa ngërëm jëmee ci moom wana jini te yàlla nga musal min daahi ci lépp loo xamee ne xeeti njuuma la mu yow sunu borom yàlla na nga màng sa ngërëm jëmee ko ci abdullahi ibnu jaxsi waaye yàlla nga ci lépp loo xam ne xeeti ngël mëndel ak njuuma mooy loo xam ne dafay jomala rek kooku mooy daahi wasu yàlla nga doole màng dégg nga ridaaka ngërëm li abdillahi jëmee ko ci abdillahi man mooy ki nga xam ne ñu ngi koy askanal ila rabbi jëmee ci rabbi yaa xaribu yow mi aji jege ji yaa badix yow miy aji fent jàmm ñëpp yow sunu borom yàlla nga doole màng sa ngërëm jëmee ko ci abdullahi ibnu rabbi yow miy aji jege ji yow miy aji fent jàmm ñëpp wasu yàlla nga màng ridaaka sa ngërëm li abdillahi jëmee ko ci abdillahi ibni rawaxa te kay doom ci rawaxa bila tanaahi ngërëm lu dul am daytal yàlla yàlla nga doole màng sa ngërëm jëmee ko ci abdullah ibnu rawaxata ngërëm loo xam ne du am mukk fu muy yem wana jini yàlla na mu musal min raw mi nafeen may sàkku njëriñ min siwaak di ko sàkku ci keneen ku bokk ak yow waab yàlla na nga may lii ñal ma abadan faw talaasumi may tëqoog faw ri daak sa ngërëm yàlla yàlla na ma musal lépp lu may wut ci xeeti njëriñ rek bu ma ko wut ci keneen ku bokk ak yow yàlla na nga may faw ma tëqoog li nga xam ne danga koo bëgg te ko wasu yàlla nga doole màng li abdullahi ko ci abdullahi man mooy ki nga xam ne nag xadin taba koy askanale ilal omar yi jëmee ko ci omar yi min ko mu bàyyi ko ci yow ridwaanan loo xam ne sama day kawe day yëkkati ko rek yàlla na nga doole màng jëmee ci abdullahi ibnul humayri mu bàyyi ko ci yow sa ngërëm loo xam ne day gën di yëkkati ko rek di sotte ko ci kaw abdullahi ibnul humayri di sotte ko ci kaw abdullahi ibnul humayri sa ngërëm loo xam ne ci yow lay bàyyi ko daal di sotte ko ci kaw abdullahi ibnul humayri maa ngi koy sàkku nga di ko sotti ci moom wasaqu yàlla na nga doole màng di dan sa limni xiqin jëmee ci doomi xiqin ji huwa kooku may wax Abdullahi Abdullahi la yaa rabbi yow sama borom yaa ilaahi yow mi nga xam ne sama buur maa ngi lay ñaan yow sunu borom yàlla nga màng sa ngërëm jëmee ci Abdullahi ibnu xiqi waaye yàlla nag ma màng sa ngërëm waxtu ne di ko jëmee ci Abdullahi ibnu xiqi yow mi nga xam ne daal yaay sama borom bi may yar yaay sama buur bi may jaamu yaa rabbi mooy ki lay defar yaa ilaahi mooy ki moom digal la nga jaamu ko kon nag wasaq yàlla nga màng di daan ngërëm lim ni xiqin jëmee ci doomi xiqin ji huwa moom Abdullahi mooy Abdullahi yaa rabbi yow sama borom mi may yar yaa ilaahi yow sama borom mi nga xam ne yow dong lay jaamu. wajut yow sunu borom yàlla na nga ñoddil yéen ñal ma wajut yàlla na may yàlla na nga tabil yéen ñal ma bil jas bi lu ñuy tuddee jas bi muy ñoddi watay ak lem muy taxañ maxan yëpp ata ujaawira ba ma dëkkaaleeg safiha ka nga xam ne moo di ajramu asufaha way ramuña sayidina kook mooy sunu sang muhammadan turam mooy muhammad wasalu yàlla na ali ci moom muhammad moome bi taslimi ànd ko ci moom yaasal muy borom gëneel yi yàlla yàlla na nga may sag jas bu loolu ku yàlla defal ngëneelam la waaye doo ci yëg benn coona mooy ko xam ne yàlla da koo taxañal mbir yëpp da koo lemal yëpp loolu fadlullahi rek la ngëneelug yàlla am na ñoo xamee ne yoonu yàlla yàlla daf leen koy lemal donte sax duñ fi yàgg am na ñoo xam ne dañuy nekk ci yoonu yàlla di jaamu seen borom téeméeri at wala 60 ans wala 50 ans yooyu yëpp juróom fukki at te fekk duñ yegg ci yàlla am ñoo xam ne ñaari at ñetti at rek yàlla lemal leen yoon yëpp ñi dëkkaale ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam yegg ci yonent bi ba jàpp ne ñii ak yonent bi ñoo bokkoon benn kër guñ dëkkoon te pourtant yàlla moo leen defal jas ak tayu rek moo tax mu ne nga may nag jas bu lu ñuy tuddi sag ñoddil bopp ak sag lemal bopp taxañal ma yoon yëpp ba ma mën a dëkkaaleeg yonent bi nga xam ne mooy ajram way ramu ña kooku nag nga xam ne mooy ajram ñay ramu ëllëg yamal xiyaam yëpp moo leen di libéré ba noppi ñu doog a mën a ramu gannaaw bañ jaaxlee kooku mooy sunu sang bi turam di Muhammad yàlla nga julli ci moom sëlmal ci moom yow mi borom gëneel yow yàlla wasuq yàlla nga doole màngari dan sa ngërëm lim ni sayidin jëmee ci doomi sayidu ji huwa moom abdullahi mooy abdullahi ji rabbi yow sama borom bi laa tanaay ci lur muy am daytal yàlla na nga màng sa ngërëm jëmee ci abdullahi ibnu sayidi yow sama borom yàlla na nga màng sa ngërëm jëmee ci abdullahi ibnu sayidi faw ngërëm loo xam ne du am fu muy yem wal tadu yàlla na nga lemal ani mu walis ma al ama ci at mi jumlatal hujub mboolem ci raay yu dox sama diggante ak yow ak yonent bi xataa akoona ba danaa nekk kañ baadika mel ni sa jaam an nujub ña ay tànneef yàlla mboolem ciiraay yu dox sama digganteeg yow ba tax manuma yegg fa sa jaam ñu baax ñu yegg damaa bëgg ciiraay yëpp nga lemal ma leen taxañal ma yoon wi su ko defee nag danaa mujj nag bokk ca jaam ñi nga xam ne ay tànneef lañ ta jege la yow yàlla wasoo yàlla nga doole mang xayra di dan ngeen ci ngërëm li abdullahi jëmee ko ci abdullahi naj li masoot kay doom ci masoot wara ni yàlla na ma tarxiyal sa bopp yaa mahboot yow ku ñuy jaamu suñu borom yàlla na nga màng sa ngërëm jëmee ko ci abdullahi ibnu masoot ngeen ci sa ngërëm daal na ko màng jëmee ko ci moom waaye yàlla nag may tarxiyal sa bopp yéegee ma ci yow yow mi ne yow yaay ku ñuy jaamu yow yaay ki yow ñu jaamu la kon ma soo yàlla na nga màngal li Abdullahi jëmee ci Abdullahi nag li Mas'ud te kay doom ci Mas'ud muy Abdullahi ibnu Mas'ud mu doon ku siw xëy ridan gën ci sa ngërëm war a xëy na yàlla ma tarxeel sa bopp yaa mahboot yow ku ñuy jaamu. ma soo yàlla nga doole màng xëy ridan gën ci ngërëm li Abdullahi jëmee ci Abdullahi nag li Kaabin kay doom ci Kaabu waxir yàlla na nga dencal aw yi aw yiw yàlla na nga dëxëñal mooy yàlla nga dencal aw yiw rek ma yaa bi yow sama borom yàlla na nga doolee màng jëmee ci Abdullah ibnu Kaab bi ngën ci sa ngërëm na nga ko doolee màng jëmee ko ci moom waaye lépp lu yiw rek ci aduna ak alaxira yàlla na ma ko dëxëñal dencal ma ko ba yowmal xiyaam wasoo yàlla nga doolee màng xayra di daan gën ci ngërëm li Abdullahi jëmee ci Abdullahi naj li masoon kay doom ci masoon wajut yàlla na nga tabee lii ñan ma bil maxsoon la nga xam ne mooy lu ñu denc la mu ne yow sunu borom yàlla na nga màng jëmee ci Abdullah ibnu Masoon ngën ci sa ngërëm na ko màng jëmee ci moom waaye seen yi nga xam ne da nga koo te itam da nga koo sa jaam yow soxloo ci dara lépp ay xéewal ci nekk rek ca aljana maa ngi la ñaan nga may ma ko wasux yàlla na nga màng xayra di daan gën ci ngërëm li abdullahi jëmee ci abdullahi naj li maxrama kay doom ci maxrama wal tux yi nii yàlla na nga dundalee bil makrom ca nga xamee ne mooy la ñu teral la yow sunu borom yàlla na nga dolee màng jëmee ci abdullahi ibnu maxrama ngën ci sa ngërëm na nga koy màng jëmee ko ci moom waaye la nga xam ne ay tiranga la ay xéewal la nag ma ciy dundal ma di ci dund ci saayir di ci dund ci baatin kon wal toxi ne yàlla nag may dundal bil makaruma ca la nga xam mooy la ñu teral la la nga xam ne daal teral nga ko bëgg nga jàmm boo xam ne dana ci dund yàlla nag may dundal ci loolee di ci dund wasu yàlla nga màngali abdullahi jëmee ci abdullahi naj lu xorfuta kay doom ci xorfuta xayri dan gën ci ngërëm wana ji ne yàlla nga musal min maxbata ci lépp loo xam ne xeeti sippeeku la ci ay jëf yu baax yow suñu borom yàlla nga mànga jëmee ci abdullahi mi nga xamee ne doom la ci xorfuta muy abdullahi ibnu xorfuta na nga màng ngën ci sa ngërëm jëmee ci moom waaye yàlla na musal lu ñuy wax maxbata mooy ni koo xam ne dafay jaamu yàlla jaamu yàlla ba mën nga ne ay bagaanam yëpp fees waaye mu jékki-jékki ba yàgg rek daal di tuuru ni nga xamee ne tey boo jëloon sa boolub añ bi duy ko ba mu fees muñ añ bi nga xamee ne moom nga gën a bëgg waa kër gi moom lañ gën a bëgg nga yenn ko rek sagan rek bool bi daanu ni muy tëqee ci suuf xam ngeen ne dootoo ko mën a dootoo ko mën a faraat kat tabaarakallaahu ndax jaxasante na ak suuf si loolu mën tuta nekk am na koo xam day jaamu yàlla di jëf-jëf ju baax waaye la koy xañ jëfam yu baaxee mooy ñàkk teggin lu mel ni suñu borom nee ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu ngeen toog ak yonent bi seen kàddu bu mu gën a jóg kàddu gu yonent bi ndax damay bañ seen jëf yu baax di sippeeku te du ko yëg te ñooñu kat borom jëf yu baax lañ mu ne nag an tahbata ahmaalukum wa antum laa tasoroona ndege kon ñàkk teggin dana tax nit ki lu mu amoon ci jëf yu baax yëpp mu sippeeku mu fangee nag mbiram yëpp baax na te fekk léppam lu bon la moo tax nag mu ne wana jine yàlla nga musal min mahbata ci lépp loo xam ne xeeti sippeeku la ta mu doon jëf ju baax wasu yàlla na nga doole xayra di daa ngën ci ngërëm li abdillahi jëmee ci abdillahi naj li amrin kay doom ci amru wa tawil yàlla na nga yàggal omri sama dund fii ke ci yow yow yàlla yàlla nga doole mànga sa ngërëm jëmee ci abdillahi ibnu amri ngën ci sa ngërëm waaye yàlla nga fi bàyyi may dund te dund gi yëpp du la génn yow yàlla mooy dund gi yëpp da ko jeexal ci topp yàlla wasoo yàlla nga doole màng yow sun borom minari daa mu tukkee ko ci li nga xam ne moo di sa ngërëm li abdillahi jëmee ci abdillahi man mooy ki nga xamee ne aboohu baayam abdu manaaf abdu manaaf lañ koy wax na nga ko màngal nag jëmee ci moom mu tukkee ci sa ngërëm fawqamaa lu kawe la nga xam ne yar joofu dana ko yaakaar mu Abdoulaye waab yàlla na may lii ñal ma fii ka ci yow wa fii wasilati ak sama wasila bii di yónent al musafa kada ku nangu ak ram moom alhaadi aji gindi nit ñi di leen teg ci yoonu siraatal mustaqim kada aji matal kóllëre lam si ñeeg boromam lépp na nga may dunyaa fii ci àddina alaxira maa loo xamee ne yëkkoonu dana nekk ajiban di keemaan lil xalq ci mbindeef la junubaa su ko su ko defee nag ma mel ni tànneef ya nu jëbaa i xasaf na ñam saka mis la nu jëbaa ma mel ni ki tànneef ya nag yàlla na nga màng jëmee ci Abdoulaye mi nga xamee ne doom la ci Abdou Manaf Abdoulaye ibnu Abdou Manaf na nga ko màngal sa ngërëm lu faw xa loo xamee ne moom Abdoulaye moom yaakaar na ko sa ngërëm daal ah ko màngal lu féetee kaw loolu waaye nag ma may ci yow man borom Touba may ma ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xam ne mooy al musafin di al haadi di al wafi ay turam lañ al musafin mooy kañu nangu am tinoom bu yomal xiyaame yàlla nangul na ko ak ramu ba te demaguñ sax alhaadi mooy kii gindi nit ñi di leen teg ci yoonu siraatal mustaqim ndax bu yowmal xiyaamee mu mën leen di xettali ndax moo leen tene alwafi mooy ki nga xam ne lim si ñëw nag boromam ci jaamu ko yëpp matal na ko mu ne nga may ci yow ak ci yonent bi aduna ak alaxira loo xamee ne mbindeef yëpp dana leen yéem te loolu sa yiw lay doon nag ndax soo ma ko mayee nag ma mel ni tànne fi fa tànne fi yegg ma yegg fa. wasu yàlla na ko dooleem màngali Abdullahi jëmee ci Abdullahi man mooy ki nga xamee ne xadin tasab ñi ngi koy askanale ilaa xumayrin jëmee ci xumayrin na nga ko may maara jaar la nga xamee ne yaakaar na ko wama talab ak la nga xam ne mu ngi koy sàkku min ko ci yow min ridwaani mu tukkee ci li nga xam ne moo di sa ngërëm wal taxab yàlla nga may lii ñeel ma nag maa loo xamee ne faaxa kawe na sani sama njorto wal tu sonsi te yàlla na nga dàq kab lii sama jéng yow sunu borom yàlla na nga màng mu bàyyi ko si yow li nga xam ne moo di sa ngërëm jëmee ko ci Abdullahi ibnu Umayri na nga ko may ba mayale ko lam doon yaakaar yëpp ci yow ci ngërëm ak lam doon sàkku yëpp na nga ko ko mayaale waaye man borom Tuubaa man it nag ma may nag lu faw sama njorta te lépp loo xam ne daf maa tënk jéng ma yàlla yàlla ma dajjul jéng yëpp ba jéng yëpp tinteeku ci man. wasux yàlla na nga màng xayra di daa ngeen ci ngërëm li Abdoulaye jëmee ci Abdoulaye naj li saxla ba kay doom ci saxla ba wal tux ni nii yàlla na ma doy loo ci yow an mat la ba wali càkkutéef la yàlla yàlla na nga doolee màng ngeen ci sa ngërëm jëmee ci Abdoulaye ibnu saxla ba waaye nag nag ma doy loo ci yow lépp lu may sàkku daal ci yàlla yàlla jox ma ko waaye nag du ma man koo am du ma topp mbindeef yi ngir bëgg ko am waaye daal dama koy bàyyi ak yàlla rek yàlla defal ma ko moo tax ma ne yàlla nga doole maa nga ngën ci sa ngërëm jëmee ci Abdullah ibnu Saxlaba waaye wala tax ni ne yàlla nga doy loo ci yow xar mat la wala càkkutéef la lépp lu may sàkku daal yàlla na ma doy sëkk walis ma koy wut ci nit ñi di maax naa loo xam ne daal yàlla rek ci la koy doylu ci yàlla la koy wutee waaye du ko waxal nit te nit du ko xam ci moom sëñ Tuubaa bëgg-bëggam nit mosul koo xam bëgg-bëggam mosul koo wax nit mostu yaakaar itam nit na ko defal ma nangam fu mu toll ak danaan ax na it nit anil arbaabi wa bi muhammadin anil asbaabi bu dee jaamu yàlla rek doy na ma ci sëkk bu dee jaar toroxlul yàlla ci jaamu ga yonent bi topp yonent bi mu doon sama sabab rek doy na ma ci sëkk bu dee ñaan yàlla lay ñaan bu dee tawsul yonent bi sallallahu alayhi wasallam doy na ma ci sëkk waaye du ngeen ma gis fenn may tawsul ci kenn ku dul yonent bi sallallahu alayhi wasallam rawatina xasida géej géej gannaaw géej géej lépp da ngay gis ne léegi nag ci yonent bi rek lay tawsul ci yonent bi rek lay gis nga ne xasida yi jiitu géej gi daan na tawsul ci gaa yu baax yi rek rawatina yonent yi dégg nga rawatina gaa yu baax ñi nga xam ne ay wëlu lañ wala ay xutbu samaan lañ waaye na bi mu demee ci géej gi ak gannaaw géej gi léegi loolu yëpp nag da koo tëral commencé nag ki muy tawsul rek mooy yonent bi waaye ki ñaan rek mooy suñu borom subhaanahu wa taala